waaw tey jégalu nag bu baax ci xarta bi xam naa ci ndigalu sëñ Maamun sëñ Fall lañ fi ñëwee. sonn ak kuréel goo xamante bi ñu ko sosee léegi mu def at kuréel yi muy tudd Fapakaab mooy fonds d'appui pour la vulgarisation des des œuvres de Cheikh Ahmed Bamba. jubluwaay bi mooy dañoo dem ba gis ne borom xam-xam yoon bi bari na ci ñuy bind waaye du ñoom ku leen ko móolal waaye buñ ko móolee du tasaaroo waaw du tasaaroo léegi nag ñu xalaat ne comme ñun xëy na ay daayira lañu waaye nag daayira yi war nañoo mën a kenn ku ci nekk xool wet nga xam nga ci nga gën a mën a liggéey Sëñ Tuubaa nga jàpp ca ñu xalaat ne comme ñu ngi bitim réew ñun ñëpp fexe ba njàngalem Sëñ Tuubaa tasaaroo ci àdduna lu fara la ci loolu lañ ko xalaatee rek biñ ko xalaatee wax ko ay mbokk taalibe ñu yaatal ko ba daanaka fi ne xaw naa daj am na kanada France États-Unis ak Sénégal ak Italie biñ ko xalaatee waxoon nañ ko sëñ bi daaw bi ñëwee woon ci màggal Porokhane gi ba mu joxoon ci ndigal boole ñoo ko sëñ Mountakha Mamadou Pakala moom lañ ñu àndaloon. bi ñu jógee dañoo waxtaan ak borom xam-xam yoon wi ñoom si docteur Abdoul Ahad Sané sëñ Mbacke Abdourahmane sëñ Cheikh na Abdoul Wadoud euh, sëñ Mamour Amdi sëñ Issa Gueye. sëñ Soy bu Jaw ak euh, sëñ Mbacke Lo Mohamed ak sëñ Soy bu Kokki euh, ñii lañ ñëwoon ñooy comité scientifique bi nga xamante ni ku bindub téere boo ñu ko joxee ba ñu jox leen ko ba ñu validé ko ñun bu ñu ko joxee ñu móol ko cent pour cent gratuite ba noppi fexe ba mu tasaaroo ci àdduna nga xam daanaka lépp rek ci cadre ma lay doon waaye nekkul lu ñu utee waaw. ñu la dañoo bëgg ba mu yegg ci barab yi gën a kawe ci xam-xam moo xam université yi la moo xam bibliothèque yi moo xam musée yi ak euh, borom xam yi ay gëstukat lañ ak étudiant yi loolu daal mooy jubluwaayu mbooloo mi wax dëgg yàlla bi ñu ko tàmbalee daaw ak ren it am na ay téere yu ñu jox moo xam ci français moo xam ci arab la waaye comité français yeeg arab yëpp lu ñu leen jox dañ koy càmbar ndax sëñ bi keroog bañ demee poroxaan di ko wax moom bokk na ci baat yi ma gën a digg yi wax mooy bala ngeen a mool nañ ko gëstu nañ ko gëstu ba tax na daanaka fi ne téere bi noppi fan yii nii nga xam dem na fi ne mu ngi Liban Liban lañ koy mboole mooy téereb Sëñ Saaliw Salaam boobu noonu. waaw moo ko waaw te ne yóbbu nañ ko Liban ñoom ñu ngi koy mbool waaw waaw dañoo bëgg nag bu ñëwee ku ñu mboolu dañ lay jox 300 copies moom loolu la ci neex def 700 yi nag ñu maye ko rek incha allah ci àdduna bi yëpp loolu daal mooy mbooloo mi wax dëgg yàlla bañ ko xalaati. bii ñu mbool de yaakaar naa jege na ci 4 millions.

téere yi nga xam ne ñu ngi ko bind ci sëriñ bi muy loo xam ne bokk na ci li gën a mën tasaare mbirum Sëriñ Tuubaa ndax ñaari se mu laaxase yooyu rek moo ci ñenn ñi danañ bind du ñu am leen ko muural wala du dëppook ni fi jamono toll. waaye laa bu bu dëppoo moom bañ defal leen koy ba ni jàpp leen ci du tasaaroo te bu tasaaroo itam njëriñ du bari kon loolu eh, yéen ñi nga xam yàlla def na ngeen bokk ci sëriñ bokk ci yoon bi. yàlla def ñenn bokk ci borom xam-xam yi suñ boom ku ne ak wet moom ko may ci wàllu xam-xam wàllu xam-xam dara jiitu ko ci ndax eh, iqra moom la moom la njëkk a fa rasulullahi kon diine ji diine qiraa la kon jàng te Sëriñ Tuubaa santaane na ko digle ci wax lu bari wax ne wa man nahaakum an it-ta'allumi fa huwa xalifatul ayni al-mujrim wa mujj makaa'idi llaa'ini l-mujrimi saddul muridiina ani taallumi kon yooyu yëpp rek ay firnde la ci ne Serigne Touba fonk woon xam kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax ginnaaw bu ngeen ci amee ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ngi Serigne Touba te ndigal li ak kàddu gi ci ne ci mu jox leen ci ndigal soññu leen ci ñaax leen ci kon ñu itam ñu ngi sukkandiku ci loolu rek di leen ñaar yàlla suñu borom dimbali leen jàttandu leen ci defe leen ci ndimbal tawfeex Sëriñ Tuubaa nangu leen ko it te jëf ji moom ko sëriñ bi nangoo rek lu ngeen ci dugg de yomb waaye ñu ngi sant bu baax incha allah fu ngeen ci toll rek ñu yëg ko ànd ko yéen bu baax sant bokk taal bi ci dugal seen alal ak seen xam-xam ak seen coono ak seen lépp liggéey liggéeyal ko sëriñ Tuubaa la ñaan dem sëriñ Tuubaa nangu leen ko baax salaamaaleykum wa rahmatullah